jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu joti 15h jàpp 16h euh, euh, tey ñu euh, dalal une équipe de Toucher di réseau sociale bi nga xam ni c'est purement éducatif ab doomu ndaw Sénégal moo ko daal di créé Aminata Ly moo ko fi toogal mooy directrice marketing Toucher ak Devi Ndiaye associé marketing laataa ñu jox leen kàddu moo fal Euh, di am mbégte dalal la fi ci plateau bi di la nuyu nga bàyyi la nga nuyu te mbokk auditeurs waaw voilà Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu suñu ay auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñuy déglu su nekk euh, di jaajëfal suñu euh, invité du jour yi nga xamante ni la ñuy waxtaanal tey ci thème bu am solo ci li nga xam moo jëm ci wàllu technologie de l'information et la communication ñu jaaree ko ci wàllu utilisation plateforme yooyu. Mm-hmm. donc den jaajëfal yow aussi ma lay nuyu di nuyu suñu technicien ki nga xamante ni moom mooy sama waa ji Mendy. waaw njaago bu ñaaw ñaawul bi Mofar nga ñëw rapidement euh, ci rubrique actualité. waaw rubrique actualité bi nga xamante ni moo gën a fës euh, jamono ji moom mooy euh, li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu coowal li jëm ci wàllu divorce yi nga xamante ni suba si ki nga xamante ni moom mooy directeur publication bu Rewmi FM def na ci benn jàngal bu am solo muy divorce yi nga xamante ni commencé naa bëri ci dëkk bi ba ñu xaymalu toll ci 1500 divorce li nga xamante ni moom mooy 2021. Mm-hmm. donc yu ci bëri nag ay contentieux yoo xamante mooy am. ci biir euh, kër yi ba divorce yu bëri lu ci bëri euh, mariage aussi ndaw ñi seen mariage yi day day day gaaw tas et un an deux ans de mariage mu mu tas mhm. euh, yenn yi nag ay problème mu li ñu koy waxee ay problème d'humeur mooy waral lu bëri bëri mariage yi di di am jafe mhm. ko nag ci mille cinq cent donc cela veut dire mois dina am lu toll ci trois cent ba quelque li nga xamante ne moom mooy ay mariage yoo xamante dina ci biir dëkk bi benn bi nga xamante ne nag c'est juste apporter une notification ci li nga xamante ne moom mooy benn fake bëggoon daw ci euh, li ñuy wax ne couplement bu dafa dafa dafa divorcé donc c'est pas une information avérée donc c'est juste euh, benn clip bu ñu waajal bu koo jaarale ci li nga xamante ni moom mooy euh, violence yi am ci biir kër yi moo tax ñu defee ko noonu pour pour xam degré wu réflexion yu sénégalais yi mu nekk une information boo xamante ni mi ngi ko circuler sur les réseaux sociaux yi woon. véhiculé également par les réseaux sociaux. je mm-hmm. pense que dinañ ci ñëwaat sax ci boobu aspect donc merci beaucoup Mofal suñu thème tey Euh, Aminata Ly directrice marketing plus cher euh, merci d'être là ma bàyyi la nga nuyonteeg euh, mbokku auditeurs Rewmi FM waaw merci Sylvie merci ci ci invitation bi di am mbégte bu rëy tey mhm. ñëw teewal fii waa waa Tout Cher muy mhm. plateforme bu bees bi nga xamante ne euh, comme ni ngeen ko waxee sànq benn doomu sénégalais euh, bu tudd Abdoulaye Meng donc moom moo ko créé jagleel ko Sénégal jagleel ko àdduna donc du ñàkk ci biir waxtaan bi léegi dinaa ci gën a dugg. Mhm. donc euh, di leen jaajëfal. merci madame Ly euh, Devi Ndiaye associé marketing est également présent sur ce plateau bonjour Devi je vous laisse saluer les auditeurs et auditrices de Rewmi FM. bonjour Oui. Vous voulez que je me présente Oui. <laughs> Donc bonjour à tous, je fais partie du pôle marketing de Touchère, mhm. euh, qui est un réseau social et une plateforme de e-learning. Euh, un concept inédit en Afrique mm qu'on vous invite à suivre sur nos réseaux sociaux et euh, à découvrir sur touchère.com. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, euh, nous allons commencer par le sujet. Euh, comment est-ce que est venue l'idée naka idée touchère ñëw ba ngeen taxawal ko. waaw touchère boo ko déggee déjà il faut ñu xaw a expliquer ci historique bi ak histoire bi nekk ci ginnaaw. Mhm. ndax touchère boo ko déggee anglais la. Mhm. maanaam lu ñuy woowee partage maanaam loo xamante ne dañ koy bokk. olof bi nag xóotul noonu xanaa ngeen xaw koo kii rek voilà donc euh, Tout Cher euh, dafa nekk euh, réseau social éducatif maanaam tey boo déggee am na réseau sociaux yu bëri yoo xamante ne jóge na bitim réew yi jóge France yi jóge États-Unis Amérique mhm. ñu daal di koy jagleel àddina boo ko mhm. defee africain yi daal di koy adopté je que yi ñuy utiliser actuellement yëpp ça nous vient ça nous exactement mhm. donc doomu sénégalais boobu lee dafa toog moom it mu xalaat mu ne tey Afrique euh, war nañu tamit euh, moomal dara suñu bopp. Mhm. surtout réseau social bi. Mhm. donc réseau social bi am tamit doole bu rëy ci wàllum euh, jeunes yi parce que tey képp koo gis am na Facebook képp koo gis am na Instagram képp koo gis am na Snapchat. donc ñu daal di koy utiliser di waxtaan di foo di kaf di reetaan mais tamit ana développement Afrique ci loolu noonu mhm. yépp donc tout cher ci loolu noonu lañ ko créer mhm. ñu ne tey dañuy li tubaab bi naan euh, joindre l'utile ak l'agréable moom la ñuy daal di jël maanaam jël réseau social jagleel ko ci service su éducation maanaam wàllu jàng. Mhm. loolu mooy histoire Tout mhm. ñu daal di koy jàngat nag daal di euh, liggéey mhm. ak euh, ay euh, ay ingénieurs yu rëy yu nekk fii Sénégal yu nekk fii bitim réew daal di teg projet bi ba mu daal di concrétiser wu. donc muy tey www.toutcher.com. boo xamante ne am na au moins 4000 utilisateurs yoo xamante ne ñu ngi ci biir plateforme bi tey. ba pare Euh, Covid 19 bi gis nañ tey. Mhm. Euh, problème yu mu indi ci biir àddina. bi mu mhm. njëkkee ñëw euh, daanaka ñëpp jànnaxe mhm. lan moo tax parce que il fallait que cours yi ñu daal di koy arrêté. ñi doon liggéey dañoo nekkoon télétravail. te ñun daanaka fii Sénégal wala bokk Afrique préparé wuñu woon bu baax maanaam dispositif bi ñuy mettre en place. pour que xale yi mën a jàng à distance maanaam ci internet bi. donc bi ñu xalaatee loolu noonu yëpp ñu ne nag tout cher jot na ñu teg ko ci kaw taable bi jagleel ko Sénégal ak àdduna mhm. noonu la création wu tout demee am na solo euh, c'est une première au Sénégal en Afrique sax laay wax mhm. parce que c'est la première fois te boo xoolee ñun africains on utilise plus les réseaux sociaux fii ci Sénégal euh, il y a 3,9 millions d'usagers des réseaux sociaux de millions yëpp Facebook la ñuy utiliser donc lii bu amee c'est quelque chose loo xam ne dañ ko war a saluer. Mhm. te képp kuy doomu ndaw sénégalais. Mhm. war nga ci abonné war nga koy suivre rawatina nga doon euh, ñan ñooy seen cible élèves yi étudiants yi parce que euh, tey boo nee réseaux sociaux y la connexion ki est derrière euh, donc te boo nee connexion c'est un public bien ciblé. effectivement donc bu ñu neewee tey euh, réseau social éducatif dafa am benn tranche d'âge bu muy commencer évidemment ndax bu ñu neewee réseau social éducatif e-learning bi mu ngi ci biir mm-hmm, mm-hmm. maanaam il faut que aussi nga am benn certaine autonomie maanaam aussi il faut nga am une certaine indépendance aussi il faut nga am connexion il faut nga am soit ordinateur wala tablette wala téléphone portable mm-hmm. donc loolu moo tax ci suñu xalaat suñu étude de marché ñu ne tey ñu ngi waxal ñoo xamante ne peut à partir de quinze ans la ñuy commencé ba trente cinq ans jëm kaw ndax ñooñu noonu ñoo nekk ci ci ci ci âge u jàng loolu moo tax ñu xalaat ay xarala yoo xamante ne yu yees dañ koo teg pour ñoom pour que ñu mën a jàng pour que ñu mën a tamit daal di waxtaan di échanger entre apprenant ak euh, ni ñuy woowee ay université ak ay formateur donc tout cher yaatu na ni àdduna parce que boo déggee ñu ne réseau social éducatif nekkul ni rekk wàllum jàngum lekkool la maanaam xam-xam ci boppam moom la ñuy partager ci biir plateforme bi. Mm tey képp ku am xam-xam ci àddina mën nga am sa place mu ngi biir Toucher parce que tey jàng bi nekkatul uh, ak orthographe kese lépp la ñuy jàng. na -hmm. la ñuy toggee nan la euh, raxasee bopp. nan la ñuy def ba am karaw nan la ñuy euh, maanaam tey astuce mat bii nii naka la ñuy def ba toj ko donc football bi maanaam par exemple benn Sadio Mané naka lay def bay mën a tirer but bi képp koo gis ci àdduna rek am na benn xam-xam bu nekk ci yow boo xamante ne yow war na mën nga partager ak keneen kooku tamit mën koo jëriñoo. Mhm. donc ñun ci loolu noonu lañ créer Tout Cher donc de ce fait am na tey euh, benn panopli de cibles d'utilisateurs mhm. yu mel ni ay apprenants. Mhm. ñi nga xamante ne dañuy jàng l'école ñi nga xamante ne ay formateurs yi lañ maanaam ñi nekk ci école wala ñi nekkul sax ci école yi. nga xamante ne am nañ ay diplôme jàngalekat dañuy wax ak ñoom. ñi nga xamante ne ay université lañ wala bokk ay structure de formation publiques et ñoom tamit am nañu wàll ci ci ci mbir mi entreprise yi xam nañ ne que li ñuy former seeni employés daanaka bëri na mhm. ñoo mbir ñu ngi ci biir professionnel yi ak ñi ma doon wax sànq ñi ñuy woowee ay créateurs de contenu mhm. parce que man par exemple ami Aminata am na benn xam-xam boo xamante ne am naa ko ci quoi que ça puisse être war naa mën a dugg biir tout cher daal di créer xam-xam bi jagleel ko yeneen aprenant ba pare dafa am benn euh, xarala benn fonctionnalité boo xamante ne dañ koo dugal ci biir mhm. euh, muy monétisation parce que tey euh, c'est possible ci tout cher nga am xam nga ne xam-xam bi lii laa koy jaayee yow mii di ut xam-xam nga ne boog 200 laa koy jaaye mhm. donc 200 boobu noonu man mii di di ut xam-xam bi dama koy jënd pour mën a xam derrière man li may ut ci wàllu xam-xam pour mën koo sàkku donc noonu la demee yaatu na lool. Mhm. mais cible yi jàppal ni bëri na. Mhm. mooy ci li ma la expliqué maanaam bu ma déggee baax professeur bi di dispenser cours mhm. day day fayee ko en waaw tey nekkul professeur parce que ñi ñuy woowee tey créateur de contenu mooy képp koo xamante ne am nga xam-xam li ma doon wax sànq rek xam-xam. yaatu na bëri na te ci biir euh, ñi mën a joxe xam-xam. professeur da cee bokk waaye du moom kese parce que man war naa mën a am xam-xam maanaam tey xam nañ ne sama mbokk séeréer yi bëgg nañ ceeb lool. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne dañoo bëgg a togg ceebu jon xamuñu nuñ koy toggee. Mm-hmm. donc man ma war a mën a am xam-xam boobu maanaam ceeb bi nuñ koy toggee ba mu xonk ba mu weseñ ba mu ñii ba mu naa ma daal di jël contenu boobu li ñuy woowee contenu ma daal di koy dugal ci sama page. Mm-hmm. léegi yow mii bëgg a jàng loolu yow war nga mën a dugg sama biir page danga may suivre abonné mhm. dugg gis naa ni que euh, kii nga euh, def nga sa sa sa profil. Mhm. Euh, am nga compte ci biir Tout Cher donc xam nga un nu muy demee. Mhm. donc yow boo ma suivre yow mën nga mën a jënd sama sama contenu. donc man ça veut dire quoi man créateur de contenu la léegi professeur bi ci boppam bi am xam-xam noonu la demee école bi. dafa am ay xarala ay fonctionnalités yu ñu mettre en place de sorte que école bi mën naa jox joxe ay ay téeméeri téeméeri cours ci biir plateforme Touchière bi te kii di jàng mu ngi biir këram wala mu ngi feneen. Hmm. donc écosystème la. donc c'est pas gratuit Touchière. pour l'instant c'est gratuit parce que dañoo def suñu lancement yàggul. Hmm. donc lancement bi ñu ngi ko def il y a maintenant euh, deux ou trois mois. donc de ce fait fi ne nii dañoo def euh, plateforme bi mu gratuit euh, création compte bi gratuit na contenu gratuit na mm-hmm. mais ci suñu quand projection future maanaam fii ak diir dinañ dugal li nga xamante ne mooy monétisation bi diggante créateur de contenu ak apprenant yi okay. Mhm. léegi man damay ñëw juste en arrière ci euh, je sais pas ndax yéen ñaar kenn moo ko ci répondre mooy côté marketing bi le non too cher parce que bu ne cher en en anglais ça di partager donc pourquoi ngeen utiliser li nga xamante ne mooy les mots anglais too cher mhm. alors que euh, si bopp nit ki bu bu déggee too cher da yaakaar ne olof de français la tout tout tout ce qui est mhm. ngeen utiliser ce nom là Touba ak tamit daa mel bi dañ ko cible rek ci wàllu formation ak li nga xamante ni moom mooy éducation alors que le Sénégalais quand il entend le mot éducation ak formation day exclure tous les autres euh, euh, kii fi nekk genre lu mel ne ñi def euh, wàllu menuiserie ñi def leen ñi def couture ñi def leen ñoom bu ñu déggee ne formation ak éducation seen bopp pourquoi nga le mot tout cher pour ne pas utiliser un mot typiquement sénégalais wala boog dafa nekk loo xamante ne dañ ko bëgg inter euh, internationalisé doo xam dëkk bi lépp euh, bu ñu nee au niveau mondial ku dugg di nga mën a gis sa bopp pourquoi ce ce mot là c'est pas nag yéen ñaa kan moo ko ci kan moo kan moo utiliser le mot là euh, wala boog c'est quoi. Mm-hmm. donc loolu répondre si yomb na lool. Mm-hmm. ndax tey bi may commencer maa ngi wax waxum Facebook. Mm-hmm. tey ku jàngul sax boo ko déggee mu naan la gis naa ko Facebook. am nañ Twitter. am nañ LinkedIn te moo yooyu noonu yëpp nit ñi dañoo am facilité trop pour wax ko teg si euh, dafa nekk plateforme boo xamante ne ñun dañoo ñëw pour wan àdduna que ñun biir Afrique am nañ xam-xam. Mm-hmm. am nañ compétence longle mooy première tey langue boo xamante ne c'est le plus parlé au monde. Mm-hmm. donc am na yenn yenn yenn yenn kii euh, comment dirais-je population yoo xamante ne boo bëggee wax ak ñoom. Mm-hmm. tey ci wàllum anglais ngay wax ak ñoom. Mm-hmm. donc pour internationaliser tey plateforme boobu le loolu moo tax ñu tuddee ko Toucher. ndax mënoon nañ utiliser mot wolof mais fii Dakar lay yem wala Sénégal mënoon nañ utiliser français fii Afrique francophone lay lay jaar. mais euh, anglais bi dafa fekk ni déjà xalaat nañ bien fii mm-hmm. Sénégal mm-hmm. mais aussi xalaat nañ àdduna yépp mm-hmm. loolu mooy première question bi deuxième question bi euh, li ñuy woowee ci wàllu marketing ay influenceur maanaam tey cible bu nekk dañuy ut koo xamante ne yow ci moom ngay gëstu moom ngay méngool pour mën a jël message boobule jaaroole ko ci yow pour mën a atteindre maanaam utilisateur boobu noonu wala client bi wala prospect bi. Mhm. donc ci wàllum communication wala ci wàllum marketing ñu nit dañoo am suñuy astuce. Mhm. dañoo am suñuy moyen pour mën a contourner. Euh, yenn euh, disons euh, barrage yi. Mhm. pour mën a egg ci ci ci ci utilisateur boobu. mais mais dafay dafay d'utiliser tout cher alors que bu nekkee rajo kooku diggul mot bi. Mhm. donc du xam comment est-ce que ça s'écrit tout mhm. cher parce que bu dee man dama naan tout cher comment est-ce que la ñuy la jaay tout ce qui est cher. sama xel ngeen njëkk a dégg dégg dégg bi quoi. ndax ndax loolu aussi bàyyi ngeen ci xel avant ngeen koy lancer. pour cible yi nga xamante ne peut-être que ce sont des français ak cible yi nga xamante ne dégg yenn langues yi. bu ñu déggee le mot euh, ce sont les bagages chers la la ñuy jaay foofu tout ce qui est euh, <laughs> vente aux enchères wala moo tax euh, fi ne euh, da xëy na question bee jiitu rek mais dama doon xaar ñu xaw a xuusaat tuuti rek mm-hmm. ci wàllum produit bi maanaam plateforme bi mm-hmm. bu ko defee dama naroon wax tout cher donc nii lañ koy bindee mm-hmm. tout cher point com t double o parce que tey am na ñoo xamante ne jànguñu te pourtant ñu ngi créer ay podcast ci ci euh, ci ci ci plateforme bi maanaam ay euh, audio la mm-hmm. yoo xamante ne dañuy jàngale ci biir yenn affaires yi ci wàllum communication wala ci wàllum marketing walla ci mm-hmm. wàllum mathématique ndax am na mm-hmm. waaw ndax technologie dafa nekk loo xamante ne dafa dafa am doole dafa am puissance nit ki mën na bañ a jàng sax mais xam parce que ñi am téléphone yëpp tey jànguñu te pourtant dañuy dugg WhatsApp dañuy euh, dugal ay audio dañuy xam nan la ñuy partager dañuy xool nu ñu duggee Facebook donc loolu noonu yëpp lañ bëgg a jël rek tiire ko ci profit wu ci profit wu éducation maintenant nag euh, xam nañ ne tey ñun xaw nañ am quand même lu bëri ci wàllum éducation su ma waxee éducation du wàllum jàng mais naka la ñuy utiliser lii wala lan moo tax lii ñu koy teg ak kan la ñuy waxal loolu noonu yëpp euh, communication ak marketing mm-hmm. may nañu ay yoon yoo xamante ne ñun dinañ xam naka la ñuy def ba ba daal di daal di accéder ci ci yooyu site mm-hmm. comme genre tey euh, tour euh, tout tour boo xamante ne ñu ngi koy waaj a mettre en place donc tout cher tour dafa nekk loo xamante ne dañuy dem ci euh, ce qu'on appelle les door to door dañuy dem ci ci ci population yi maanaam tey ci suñu cible ay école yu nekk Fatick wala Kaolack wala Casamance wala fii mm. Dakar mm. ñu daal di dem uti wan leen utilité wu réseau mm. sociale boobu leen Peut-être euh, peut une question pour euh, mhm. euh, s'agir de, marketing. Comment est-ce que vous allez faire maintenant pour pouvoir convaincre les Sénégalais à accéder à votre plateforme Parce qu'il y a beaucoup de, de, qui sont là. Il y a TikTok qui, mhm. qui souvent utilisé, mais je mhm. pense que pour le moment, il n'y a, a, pas beaucoup de Sénégalais qui, ne parviennent pas à faire de la monétisation comme, est-ce que vous allez faire pour convaincre ces Sénégalais à, au lieu d'utiliser les coûts chers et de pouvoir donc euh, mettre en, en œuvre leur, leur, leur, leur vidéo, tout ce qui, tout ce qui est production et, et monétiser cela via Toucher. Alors en fait, ce qu'il faut savoir d'abord, ce qui est important aussi, c'est que Toucher, c'est une plateforme africaine. Mmh. Donc du coup, euh, en utilisant Toucher, on soutient aussi le fait que euh, ce soit une initiative africaine qui a été pensée par un Africain pour les Africains. Mhm. Le but, c'est que euh, les Sénégalais puissent s'approprier cette plateforme-là, comme vous avez dit. Ils sont exclus des autres plateformes mhm. sur lesquelles ils ne peuvent pas monétiser euh, comme les autres Donc le but c'est vraiment qu'ils puissent comprendre que cette plateforme-là elle est faite pour eux. Mhm. C'est toujours difficile de changer euh, les usages euh, des personnes mhm. euh, quand ils ont certaines habitudes de pouvoir leur, faire utiliser de nouveaux systèmes, de nouveaux réseaux sociaux, etc. Mhm. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'approprient le réseau social et qu'ils puissent justement soutenir la marque en utilisant Toucha. Mmh. Hmm. C'est ça. Et euh, je vais juste compléter aussi. C'est important aussi de savoir aujourd'hui que euh, on peut avoir les mêmes cibles ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un réseau social est différent, pur et dur, est différent d'un réseau social éducatif. Mmh. Encore une fois, parce que euh, le réseau social, c'est pour échanger, c'est pour faire des links, c'est pour s'échanger des photos, des vidéos, des astuces et trucs. Alors que pour le réseau social, là, on parle vraiment d'éducation. Mmh. Voilà, donc euh, je, je, vais rebondir en Wolof, mmh. juste pour dire que Taï, éducation dafa nekk loo xamante ne problème mu accès bi dafa nekk lu wér nekk loo xamante ne tey dañ koy lam-laame mm-hmm. du ñëpp ñoo am tey chance dem ci yenn école de formation yi di fay scolarité di fay inscription mm-hmm. du ñëpp ku mën du ñëpp aussi ñoo am chance daal di dem université parce que gis nañ ne tey problème yi ñu am problème de place ak yooyu noonu donc ñun tey dañoo ñëw maanaam tout dafa ñëw pour jéem a assister ñëwuñu pour ne un un maanaam école classique bi dara baaxu fi dañ koy dindi mm-hmm. non non non dañoo ñëw pour renforcer justement système bi mm. pour absorber tey manquement yi am mm. ci wàllum euh, jàngale bi euh, ci wàllum accès bi donc je pense que tey loolu noonu sénégalais yi bu ñu ko déggee mm. wala africain yi de manière générale nekk na benn aubaine boo xamante ne te daa daan def nañ aussi euh, benn période test boo xamante ne dañoo quand dem xool ci milieu éducatif bi daal di jël aussi seen li ñuy woowee seen input seen seen xalaat ci wàllu wàllum création plateforme bi. Mhm. parce que li ñuy développé tey ci wàllum xarala wàllum fonctionnalité yépp xool ñoom naka la ñu gisee réseau social éducatif fu Afrique. Mhm. donc ñun tëjuwuñu fenn ñu ne dañuy xalaat am jël leen dañoo xool maanaam besoin bi bi nekk ci biir Afrique ñu daal di nag créer euh, plateforme bi noonu le mhm. donc je pense que loolu moo tax tey euh, ñu ci ëpp boo leen toogee expliquer leen euh, maanaam projet bi. qui est devenue une concrétisation maanaam tey dañ ko accueillir à bras mhm. parce que ñëpp ko doon xaar. Mhm. voilà. Mhm. lan mooy seen particularité. tout cher. particularité baa ngi nii réseau social éducatif parce que tey boo neewee réseau social éducatif dafa am ñaari fànn dafa am réseau social maanaam mën naa créer sama compte mën naa suivre ay nit ay nit mën nañ maa suivre. mën naa ajouter samay photo mën naa bind ay nit ci sama si sama fil d'actualité et cetera et cetera mais aussi beneen côté ci wàllu boobu noonu dafa am éducation maanaam li ñuy woowee LMS learning management système maanaam dafa nekk loo xamante ne dañ ko fee teg pour jàng tey formateur bi am na possibilité jàngale à travers boobu fànn mhm. apprenant bi am na possibilité wu jàng ci boobu fànn ba pare ci biir LMS bi dañ cee dugal ay fonctionnalité yoo xamante ne man mii nekk fii ma nekk Casamance kenn nekk fële New York wala keneen nekk fële euh, Paris mën maa jàngale te duma bouger fu ma nekk jox ma xam-xam mm-hmm. à travers des systèmes de visioconférence ak yeneen ak yeneen donc tout cher comme ni ma ko waxee sànq écosystème la donc différence bi ak innovation bi foofu la ne jël réseau sociale def ko au profit de l'éducation mm parce que gis nañ ne que LMS maanaam digital learning dafa yàgg exister du ñu ñëw ne ñun ñoo ko fi njëkk a créer mhm. mais li ñu waxul ak li ñu xam mooy taux de décrochage bi ci biir mhm. dafa bëri mhm. lan moo tax parce que xale yi tey dañoo am habitude nekk ci réseau sociaux yi donc bu ñu duggee ci cadre boo xamante ne c'est purement éducatif hmm. maanaam euh, kii jàngal na na na bu ñu toogee tuuti rek duñu dem au bout de la formation buñ demee tuuti dañuy génn parce que lu tax amul lu leen fa téye de ce fait ñun loolu moo tax ñu jël ñu joindre réseau social bi ak LMS bi daal di koy joindre mu nekk Tou Cher hmm. innovation bi foofu la nekk hmm. mais mais est-ce que aussi euh, bàyyi ngeen xool aussi Sénégal dañuy utiliser les réseaux sociaux parce que bu ñu réseaux sociaux fii dañuy xaar euh, Facebook ak yeneen mais am na yenn yoo xamante ne peut-être que yenn Sénégalais ñu ngi utiliser lu ci mel ni LinkedIn lu ci mel mm-hmm. euh, nga xamante ne moom mooy comme yooyu mais boole li nga xam ne moom mooy éducation. Mm-hmm. est-ce que ñu ngi bàyyi xel ñenn ñi nga que tàmmuñu yenn façon réseaux sociaux yu ci mel ni comme LinkedIn Twitter fonctionnalité ni muy ni muy demee foofu sénégalais bay taayal nañ loolu li ñu gën a li bëgg daal moom mooy loo xamante dafa bëri aspect ludique dafa bëri foo affaire yooyu mm-hmm. est ce que bàyyi ngeen xel ne loolu boo leen ko doon kii est ce a commencé foofu si loo xamante ni peut être que euh, euh, yoo xamante ni c' est le dans le domaine informatique wala li nga xamante ni mooy wàllu euh, communication ñun suñuy mbiru def foofu dañ koy def d'une façon boo xamante ni ki nga xamante ni bëgg na créer compte naan ah man de au lieu ma dem di utiliser compte may utiliser ji YouTube bàyyi ma dem toucher parce que toucher mhm. euh, dina permetre su ma amee cent abonnés rek wala boo cent nit yu may suivre rek dinaa commencé monétiser euh, comparé à YouTube bi nga xamante ni il me d' abord euh, dix mille abonnés et quarante mille heures mhm. que yooyu yëpp bàyyi nga xel laataa ngeen di ngeen ngeen di lancer si li nga mhm. xamante ni moom mooy mooy côté éducation parce que internet bi cher na yeneen ak yeneen donc une personne koo xamante ni amul opportunité yooyu donc pour mu jël choix diggante tout cher ak yéen yi nga xamante ñoo fi nekk day xaw jafe ci est-ce que yooyu yëpp yéen a ngi koy bàyyi xel laataa ngeen def lancement bi. Mhm. waaw laata ñuy def lancement bi dañoo daal di toog ñu def maanaam lu ñuy woowee euh, état des lieux daal di xool réseaux yi nga xamante ne ñoo fi nekk yëpp parce que xam nañ ne réseau social bu ne am na plus de dix fonctionnalités maanaam xarala yu bari lay am ci biir. Mhm. mais dafay fekk ni ci wàllum utilisation. musoo gis ñu ne nit am nga benn euh, réseau social booy booy utiliser te yow fonctionnalité yëpp ngay utiliser lu ci ëpp benn fonctionnalité moo la ci mhm. intéressé wala mhm. ñaar bi ñu defee boobu diagnostic ñu ne ok kon réseau social bi bii mooy fooram bii la nit ñi di utiliser lii lañ bëgg mhm. YouTube pareil bii ak bii ak bi donc kii lay waxal beneen ak beneen beneen ak beneen ak beneen ak beneen léegi nag loolu noonu yëpp maanaam tey fonctionnalité phare ñi nga xamante ni nit ñi moom la ñuy gën a utiliser ñun moom lañ jël regroupé ko def ko mu nekk Toucher donc en amont maanaam avant création Toucher ci boppam tey dañoo sottante xalaat ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy techniciens yi gën a mag fii ci àddina ñu daal di ñuy xelal ñu bàyyi xel aussi maanaam besoin wu Afrique tey lan la soxla ñu daal di jël besoin wi utilisateur ak manquement yi nga xamante ne créateur de contenu yi am nañ ko ci biir Afrique versus Europe wala États-Unis ñu daal di jël loolu noonu yépp daal di koy dekk mu nekk tout cher loolu moo tax tey amuñu benn benn dissociation boo xamante ne dañ koy def. Mm-hmm. diggante créateur du contenu bu nekk fii Afrique wala bu nekk Europe wala bu nekk États-Unis or que suñuy créateur de contenu pourtant ñoom ñoo ngi koy subir hmm. parce que comme ni nga ko waxee léegi lii ak lii ak lii il faut que nga def lii ak lii pour mën a monétiser alors que surtout Toucher ce n'est pas pareil mën nga monétiser à partir de temps de temps de temps de temps donc loolu noonu yëpp ay explication ak éducation boo xamante ne dañuy dem ci nga xamante ne ñoo ko yellool maanaam suñuy cible ñu daal di leen koy expliquer ñu nangu ko te comme ni ma ko waxee tey defaguñu sax communication bu mag. ci période test lañ ne et pourtant 4000 utilisateurs ñu ngi tey ci biir plateforme bi et c'est pas négligeable du tout. Euh, mais aussi euh, aussi euh, benn moom mooy côté côté technique bi parce que man je suis je suis trop technique moom moo tax. Mm-hmm. ci li nga xamante ne moom mooy utilisation boobu bu plateforme ñu wax ñu wax Tushare. ba man ba damay man souci bi moom mooy peut-être mën nañu wax da ngeen jël faayu ñeen ñi nga xam ne ñoo fi nekk. ngeen jël yoon faay point fort. donc point fort ñeneen ngeen jël boole lépp daal koy def benn mm-hmm. mais ki nga xamante ne peut moom euh, même fekkee mi ngi def li nga xamante ne moom mooy continue comme ça man ma ni man mm-hmm. euh, ngaay laa nekk damay damay defar damay defar daal mm-hmm. euh, am koo xamante peut-être xamul nu ñuy nu ñuy defaree waraw cinq kii wala fayo cinq bu mu jàngale ko noppi mais kooku bu jàngale aussi dina soxlaw li nga xamante ne moom mooy lu koy ñëwal au-delà ci li nga xamante ne moom lay am comme mais au moins muy am interaction ay personnes yoo xamante ne ñu ngi à mu mën di euh, jaay ay commandes am est-ce yooyu yëpp yéen a ngi koy xel mm-hmm. wala yooyu dafa nekk ay genre euh, rajo yoo xamante ne koy def au fil du temps yi xamante ne mm-hmm. plateforme bi mi ngi exister mm-hmm. il plateforme la. Mhm. maanaam dafa nekk loo xamante ne dañ koo créer pour nit ñi. pour mhm. créateur de contenu yi formateurs yi maanaam tey euh, système éducatif yi. ak utilisateur mhm. ak utilisateurs yi. pas seulement les formateur waxoon naa ko sànq. dafa am ñu ñuy woowee ay créateur de contenu ñu am xam-xam. ñoom ñu ngi ci biir Toucher. dafa am ñu ñuy woowee formateur. ñi nga xamante ne peut-être mën nañ nekk ci école yi wala boog ñu am ay diplôme de formation. am nañ xam-xam. mën nañ nekk ci biir Toucher. Mhm. apprenant yi maanaam ñii di jëli xam-xam bi ñu ngi ci biir Toucher université yi ñu ngi ci biir Toucher. Mhm. et cetera ak professionnels yeeg entreprise yi parce que sur Toucher boo créer sa compte da ngay am profil comme yeneen réseau sociaux yi. Mhm. léegi ci biir création profil boobule yow mën nga ne que da ngay am lu ñuy woowee page pro par exemple professionnel nga wala page école parce que institut la léegi ci biir loolu noonu dafa am ñaari fànn yuy ñëw da am visibilité parce que tey li ñu bëgg mooy à terme ci biir Toucher mu am ay millions et des millions et des millions d'utilisateurs ay apprenants maanaam écosystème yi bi ma bi ma bi bi ma cité léegi nii ñoom ñu nekk ci biir donc koo gis ci biir cible yi rek utilisateurs yi tey am na loo xamante ne dañ la ko jagleel ci biir utilisation bi c'est tellement ludique c'est tellement simple que tey soxlawul formation mhm. pour xam naka la ñuy euh, utiliser Toucher parce que boo duggee rek lépp dafa ne fang et puis c'est tellement bien fait doo réer mhm. maintenant créateur de contenu boobu noonu comme ni ma ko waxee sànq parce que boo déggee réseau social c'est parce que bu ma créé sama compte man am na ñeneen ñoo xamante ne dinañ gis sama profil mhm. man Aminata cordo euh, cordonnier la maa ngi ngaay fii laa dëkk et cetera maa ngi abonné depuis avril 2022 par exemple donc man mi euh, gis sa profil sa mën naa nekk sa abone su ma nekkee sa abone tamit man damay suivre say publication loolu mooy sama page profil maintenant su ma bëggee professionnaliser man sama sama business mën naa par exemple mën naa ko tuddee euh, réew mi réew mi euh, cordonnier mhm. damay créer sama page mhm. pro tuddee ko réew mi cordonnier mhm. su ma ko tuddee léegi dafa am yeneen abonné yoo xamante ne dañuy dugg di la suivre léegi loolu moo indi monétisation bi moo tax sànq ma ne affaire bi écosystème la parce que foo ko nattu rek weesu na ko ba pare dafa ubbi ubbeeku ci àdduna boo neewee digital ne plateforme ne www.toucher.com loolu mooy ki nekk fële Ouganda war na mën a taper plateforme bi mën cee dugg mhm. am na fran am na ay euh, contenu français am na anglais et en plus dañoo dugal ay dialecte ci biir mhm. maanaam tey am na wolof mhm. am na séeréer am na joola parce que dañ waroon def suñu suñu lancement Côte d'Ivoire dugal nañ ci ay jula donc li de mooy à chaque fois bu ñu demee ci benn dëkk rek ñu daal di def tout pour bàyyi xel ñi nga xamante ne dañoo bëgg jàng donc loolu moo tax tey poussière mënul mënul tëju. Mm-hmm. mënul nekk parce que mm-hmm. nit ñi ci boppam ñoom ñoo koy alimenter ñun dañoo teg fii plateforme bi. Mm-hmm. daal di teg ay ay ay xarala pour utilisation bi léegi nit ñi ci boppam maanaam créateur de contenu ak utilisateur yi. ñoom ñi ñoom ñoo mën a fixer seen limite en matière de création de contenu en matière d'apprentissage et de partage mais du jeex am na solo vraiment. la monétisation nu muy nu muy demee monétisation bi c'est immédiat wala. wala dafa am exigence yu am. waaw comme ni nga defee sur YouTube. waaw monétisation yi euh, am na ay exigences amul ay exigences parce que tamit bu ñu neewee réseau social éducatif africain du ñu ne tamit que dañuy jël ay euh, contenu wala ay formation di ko def 1000 dollars. Mm-hmm. donc le le plus logique tey bu ñu waxee problème accès éducation. mooy ñu teg ay jéego de sorte que ñii di créer yi am benn limite. ci wàllum création de contenu. Mm. voilà donc ñu ngi ciy liggéey actuellement suñu équipe technique bu ah, xarañ lool mm-hmm. ñu ngi koy euh, ñu ngi koy développé donc mm-hmm. normalement si quelque mois mm-hmm. deux ou trois mois dina nekk loo xamante ne ça va être disponible ak application mobile bi parce que jusqu'à présent application mobile bi génnagul mais ñu ngi ciy liggéey d'accord euh, man li ma bëggoon xam comme on parle d'apprentissage ak formation par exemple tey bu ma jugoon ne damay def formation t coaching wala bëggoon perfectionner loo xam ne bëgg naa daal mu jëm kanam mhm. est-ce que euh, bu formation bi jeexee euh, ci tout cher dinaa am attestation wala diplôme du genre waaw loolu dafa nekk aussi question bu am solo parce que tey booy euh, créer sa compte Toucher on considère que yow da nga ñëw ko ut xam-xam donc ci wàllum création boobu yow dañ lay laaj yow ban façon bu xam-xam moo la intéressé maanaam dafa am ay thèmes ak ay domaines yoo xamante ne yow mii di créer sa compte danga koy cocher léegi boo ko coché wee am na ñi nga xamante ne ñi ma doon woowee sànq ay créateur de contenu ak mhm. ay jàngalekat mhm. yoo xamante ne dañoo nekk ci biir Too di créer ay cours tout le temps léegi yow mi créer sa compte boo xasee ba am sa compte donc ci wàllum réseau sociale bi da gis ay suggestion de cours maanaam tout le temps da gis à côté voilà am na ko ku publier cours bi ci wàllum bi est-ce que intéressé na la mm-hmm. léegi bu la intéressé nga daal di cliquer mm-hmm. loolu la ñuy woowee parfois ay cours gratuits mm, mi ngi ni suggestion de cours parce que yow créateur de contenu bi yow yaay xool est-ce que dangaa bëgg dugal say cours daal di koy jagleel apprenant yi gratuitement mm-hmm. wala bokk da ngay dugal sa cours daal di def en sorte que nit ki ko bëgg a euh, utiliser maanaam euh, kii daal di koy jënd. Mm-hmm. léegi nag ci ñaari fànn yooyu créateur de contenu bi ci boppam moom moo koy décider léegi ci wàllum diplôme. Mm-hmm. parce que tamit benn Aminata mën na jóge fële ne waaw man dama am xam-xam. Mm-hmm. donc ne damay joxe benn Sophie euh, ay cours mais man tey ban. Euh, sañ-sañ ak ban xam-xam bu avere laa am bay mën a nekk naan damay joxe ay cours loolu noonu aussi tout cher daf ko xalaat mm-hmm. naam tey ñëpp mën nañ nekk créateur de contenu sur mm-hmm. tout cher mm-hmm. mais affaire yi aussi dañ ko teg ci yoon parce que ni ngeen gisee ci Facebook bi mu am ay badge maanaam euh, ay star ñu am badge bleu bi maanaam lii page bi c'est certifié et authentifié noonu la créateur de contenu yi aussi yi nga xamante ne dañuy mën a joxe ay cours yoo xamante ne day ay diplôme après noonu lañ koy certifié te loolu merci ay prérequis yoo xamante ne dañ koy mettre en place mm. pour que euh, kii di jàng mën a ràññee que kii nii war na mën a am xam-xam bu doy pour mën maa jox ay cours et que après dina am diplôme bi loolu un la deux mhm. am na ay réseau d'experts yoo xamante ne dañ koy mettre en place te réseau d'experts yooyu noonu c'est constitué de de de de de de fonctionnaires de comment dirais-je de d'enseignants supérieurs et de formateurs tey de renommée et avérés ñooñu noonu ñooy jàng ci kii pour wax ne cours bii mot na wala motul mhm. wala cours bii nit ki ci boppam moo ko bind wala bind ko wala boog au bout de de ce cours là bi mën na ci am xam-xam mhm. donc processus bi noonu la demee mhm. maa ngi wax aussi waxi école maanaam école yi tey dañuy am double double formation bu ñuy def formation physique mooy bi nga xamante ne école bi nit ki day dem di jàngi sur place présentiel ak beneen boo xamante ne c'est en ligne donc loolu noonu moom euh, diplôme bi école bi moom moo koy gérer. voilà dina am aussi ci kanam ay cours yoo xamante ne tout cher ci boppam. Mhm. moom moo koy certifié maanaam ay formateur tout cher am na lii du réseau Como de. <laughs> waaw du réseau parce que parce que soo comprendre idée li nga xamante moom mooy mhm. euh, tout cher parce que je croyais que. Mhm. c' est juste sociaux comme les autres réseaux sociaux yi nga xamante ngay ñëw ton compte après ngay se contenu comme noo ko bëggee mais bii je pense que c' est réseau la boo xamante euh, bu ne bu ñu apprentissage euh, du côté éducation mais ku nekk war ngaa mën a ñëw gëstu si ñi nga doom yi dégguñu tukulóor mhm. am ko xamante ne day jàng cours tukulóor wala ci mën dugal dara ñoom ñoom ñuy ñoom mais benn problème la am muy li nga xamante moom mooy lii di mhm. euh, euh, calpe électronique yu ni mel est-ce que loolu aussi euh, bàyyi ngeen xel ba nga xamante peut-être que ki nga xamante benn simple morphal bi nga xamante moom bëgg na créer plateforme bëgg na def ay contenu mais moom euh, amul temps dem uti ji rek ay ay ay moom mais moom à partir de son de son compte électronique bi nga xamante ne am na ko mu mën mu mën see euh, ba li muy fay mu fayee ko foofu bu jot dara mu jotee ko foofu directement nga xam day amee compte boo xamante ne bu paree day xam somme bi lii la mu faire euh, un transfert de de fonds boo xamante ne day ñëw directement ci compte am mu am benn sécurisation aussi mm-hmm. Mm-hmm. loolu la parce que tey sa tour sa sant sa adresse email lañ lay laaj mhm. kese donc loolu noonu boo ko defee am nga accès ci plateforme Too Chers mhm. léegi yow nag euh, ci sa wàllu bopp yow yaay compléter sa profil léegi ci wàllum euh, jàngale ak euh, ci wàllum jàngalekat mhm. nit ku nekk di nga am sa plateforme plateforme boobu noonu bu fekkee yow jàngkat nga da ngay jënd d'habitude ay cours dinga am sa maanaam li ñuy woowee euh, visibilité mm-hmm. benn dashboard boo xamante ne yow xam nga naka ngay def ak fan ngay jaar pour mën a payer sa cours te bu loolu noonu aussi dañuy jël en compte les réalités euh, économiques fii mm-hmm. maanaam sa à partir de sa téléphone nga mën a fay sa cours te doo bouger fi nga nekk ki bëgg def compte bancaire daal di def compte bancaire am maanaam kartam rapidement mm-hmm. donc loolu dañ koy jël en compte ki nga xamante ne aussi moom mooy jàngale war a recevoir ay fonds am donc tout tout est pensé ba nga xamante ne sa sa sa sa sa sa koom-koom sa xaalis di nga ko mën a recevoir aussi. Mhm. en un temps trois mouvements. Mhm. donc loolu noonu yëpp ça va être pris en compte ci monétisation bi. de ce fait suñu équipe technique ci loolu lañ nekk justement te dinañ liggéey aussi ak fii. Mhm. ay euh, ak ay secteurs ñi nga xamante ne dañuy wàllu ci dañuy yëngu ci wàllu secteur économique bi. sept minutes moo ñu desel tey. Euh, études yu bëri révélé na réseaux sociaux yi ak plateforme numérique yi boo ñoo ci ëpp ñuy véhiculer de fausses informations euh, tout cher lan yan disposition la jël pour par exemple benn site bi xëy rek publier loo xam ne waru ko publier mhm, mhm. waaw loolu noonu aussi euh, xalaat nañ si loolu moo tax euh, tey c'est possible nga mën a signaler loo xamante ne contenu bu baaxul la wala contenu bu boo xamante ne yow yaa ko moom mhm. nga daal di ñëw retrouver ko surtout Tout bu ko defee plateforme bi après daf koy bloqué am na loo xamante ne aussi euh, lu ñuy woowee ñun dañoo am moteur de recherche ci biir chair maanaam am na foog comme Google la boo ko tapewee et c'est très visible ci plateforme bi boo ko tapewee di di out information euh, sur journalisme wala bokk sur euh, communication wala sur mathématique dafa am ay ay article ak ay euh, contenu court yoo xamante ne day génn maintenant ki nga xamee ñi nga xamante ne ñoo njëkkoon jàng ci yooyu ci yooyu contenu bu ñu paree dañuy noter est-ce que cours bi am na quatre étoiles est-ce que am na cinq étoiles est-ce que cours bi baax na walla baaxul léegi yow plus sa cours ñu koy note plus sa contenu moom mooy nekk ci kaw plus sa moins sa contenu baaxul kenn notew ko kenn du ko gis. Mm-hmm. donc tey dañuy cours yi dañ koy noter dañ koy noter dañ koy noter donc mhm. loolu moo tax tey dañuy def un peu la part des choses entre le contenu d'excellence et le contenu qui ne l'est pas du tout Sylvie ma ñëw am important parce que je pense que am am lu leer lu mu wax dafa ne euh, cinq étoiles ak mhm. mu mel ne man man man mu dëgër fu mel ne Mor ñëw créer sama compte ñëw ne léegi ma à chaque fois damay jël li nga xamante ni mooy revue de presse doo ko ci biir je vois ñu ni ñi ñi ngi koy xool mais kenn jëndul ma xëy benn journée la waaw am na euh, plus de cinquante vues ci kii bi pourquoi ñu ma donc foofu aussi foog nga leeral nit ñi ne ndax si nombre de vues lañ lañ lay fay wala bokk si ñi jënd si loolu ci loolu fay loolu aussi foog mu leer bopp sénégalais parce que euh, bu buñ bëggee jàppee comme réseaux sociaux bu ci mel ne comme euh, YouTube nga dugal say contenu YouTube fay la ci loolu hmm. donc nga ñëw rek créer benn kenn jëndul say say euh, say nga xëy benn jour ne waaw ñi dañ maa nax parce que am naa nombre de vues bi te te jotuma xaalis donc naka lay demee nombre de vues la wala bokk ñi ñi fay jënd seen seen kii ci loolu la ngay amee li nga xamante ni mooy revenu waa je pense que loolu waxoon naa ko léegi. Mhm. tey pour mën a am accès ci yenn contenu da nga koy débloqué. Mhm. donc ba tey waxi vue moom tegee nañ ko nale mhm. donc tey man dama man Aminata dama bëgg jàng gis naa maître Mor Fall daal di teg def lii ci benn cours dama ko bëgg jàng dama bëgg xam lan moo nekk ci biir donc mën naa fay deux cents francs pour mën a débloquer cours bi. balaa ngaa dugg di ngay fay effectivement su ma paree. man may note ma évaluer cours bi ma cours bi ma cours bi ma recevoir est que mm. baax na wala baaxul mm. comme ça dinaa jox visibilité yeneen apprenant yi daal di ñëw mm. et puis plus créateur de contenu bi di am ay notation ak yooyu noonu plus da ngay gën a nekk ci kaw plus nga am ay partenaires plus entreprise yi par exemple bu ñu soxlawee ay formateurs ñu lay gis plus apprenant bi di di di actif entreprise bi mën la woo pour nga ñëw def sa premier stage link la ay link la. ak donc c'est pas un problème de vue mais c'est un problème d'achat ci ñi nga xamante ne ñooy utilisateur oui ça je pense que c'est ah, mel ne man wala ku mel ne Léon <laughs> mhm. dara mën na changer mën nañ dem ba vue yi génn. Mhm. mais bu ko defee dinañ teg ko même ay ay condition ak ay informations. Mhm. yu leer de sorte que jaxasoo du am. voilà projet bi nekk na lu am solo lu ñu war a saluer est-ce que le ministère de l'économie numérique euh, dugal na ci loxom am nga am ngeen appui benn appui ko jëm ci état bi donc bi ñu defee euh, disons concrétisation projet bi ba plateforme daal di génn effectivement dem nañ au niveau du ministre ba présenter ko projet bi mu daal di koy euh, saluer wax dëgg yàlla même bi ñuy def suñu événement bi ministre bi ñëw na et tout. Mhm. donc actuellement ñu ngi en pour parler ak ñoom pour xool un peu euh, boobu bi solution naka la ñuy def pour intégrer ko au niveau quand même des universités universités euh, publiques et privées ba pare wax nañ ko tey euh, tout cher Sénégal pour l'instant et fii ak mu le mois de mais ñu ngi ci sommet de l'éducation li mm-hmm. nga xamante ne Kigali euh, kàngam yépp ci éducation foofu la ñuy nekk donc dinañ fa dem teewal fa Sénégal teewal fa Afrique pour wan leen aussi que tey réseau social éducatif bu ñu kii donc loolu noonu yépp ñu ngi ci waxtaan ak ak état bi Mhm. ak investisseurs yi aussi. autorité euh, académique ñoom it ñoom ñëpp yëg nañ projet bi waaw ñoom ñoo ñoo jiitu ndax euh, bi may wax sànq période de test bi ñu nekkoon créateur de contenu yi ak école de formation yi tey am na ñu bëri ñoo nga xamante ne ñu ngi ci biir am nañ équipe interne boo xamante ne partenariat rek mooy seen liggéey donc ñu ngi dem si ñoom pour war leen au fur et à mesure fonctionnalité yi ñu développé naka ban utilité la am tey ci diggante ñoom ak wala bokk seen i seen i élèves. donc ñoom institution financière ndax nañu accompagner leen ñu mel ñu nekk Sénégal. bien sûr te loolu c' important dans le processus de de la monétisation. de mm-hmm. ça c' est d' part et d' part ñu mën a xool aussi ñoom it naka la def pour que création de contenu bi mën a gën a jëm kanam fii ci biir Afrique. Mm-hmm. parce que l' Afrique quand même de voilà d' très gros potentiel en termes de content. Mm-hmm. ba ngeen ko lancé léegi yàgg na yàggul décembre Euh, fu mu toll nombre d'utilisateurs yi et tout. waaw ouais, actuellement nous avons euh, atteint et même dépassé la barre des 4000 utilisateurs donc ci biir 4000 utilisateurs yooyu noonu mooy créateur sama mbokk créateur de contenu yi fi mu ne ñu ngi créer di créer di mhm. créer parce que justement am na ñoo xamante ne comprendre nañ tey euh, enjeu bi am ci ci ci biir parce que tout cher nekk na loo xamante ne bu bu xasee ba dem dem na te tey bugguñu Euh, bitim réew wala nasaraan si daal di koy approprier parce que ñun ñoo ko moom mhm. de ce fait tey créateur de contenu yi te duñu ay sénégalais kese mhm. am na ay béninois am na ay ivoirien am na ñu bëri ñoo xamante ne tey chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi ci euh, ci biir plateforme bi di mhm. créer ay carrousel maanaam euh, ay format yu bees la yu nekk à la mode di ci traité ay sujets yu bëri ñu ngi commencé di am ay abonnés di ngay gis ay 2000 abonnés 3000 abonnés donc dynamisme bi ñu doon xaar moo ngi commencé am dëggantaan ci biir kii bi léegi nag li si des ah wàllum euh, digital bi ak marketing bi la rek ñu daal di gën a pousser liggéey bi. Tuchère am na solo mën nga ci jàng. Mm. di am xam-xam comme mën nga ci dispenser ay cours. Mm. ñu lay mm. fay lu am solo la euh, peut-être euh, moo faal bu amee une dernière question. une minute moo ci des jox ñu rek foo xamante ne peut ki ñi bëgg a inscrire fa ñu war a mën a jaar ndax am nañ page Facebook. am nañ siège social boo xamante ne que euh, ñu a chaque fois ci li nga xamante ni a technique de l'information de la communication ñun on a maag yow jaar ci li nga xamante ne mooy mm-hmm. formation à distance xam nañu mm-hmm. euh, importance bi nga xamante ne am na ko jamono ji nga xamante ni ci lañ nekk mm-hmm. euh, donc bu fekkee rek page Facebook bi am na ko mu joxe ko aussi mu joxewaat aussi ni ñuy bindee tout cher pour ñu mën dugg dem inscrire foofu donc mën a utiliser plateforme boobu donc tout cher O O maanaam ñaari mm. H A R E. Mhm. voilà donc euh, tout cher collé point com. qui signifie en français. Euh, partager le partage c'est ça. Mhm. donc tout cher point com bu ngeen duggee bu ngeen ko tapewee rek di ngeen accéder euh, rapidement ci biir plateforme bi ñu laaj leen seen tur seen sant seen adresse email. c'est pas difficile ak seen mot de passe jeex bu ngeen ko defee ngeen inscrire dugal seen foto commencer di am ay abonnés di mhm. follow et tout ça. voilà donc suñu réseaux sociaux yi tamit ñu ngi fu Mm-hmm. ah ñu ngi Facebook ñu ngi Instagram ñu ngi LinkedIn donc ku nekk mën nga xool fu la arrangé rek nga dem fa saa boo tapee barre de recherche bi touché rek di nga gis suñu page. voilà siège social bi fa la nekkee. siège social ngi fii plateau. Mm-hmm. Euh, en ville donc euh, Jules Ferry 32 rue Jules Ferry foofu lañu nekk. d'accord merci ñu bàyyi la nga tàggatoo rek. waa xanaa di leen jaajëfal vraiment waxtaan bi am na solo lool. Mm-hmm. Euh, di leen remercier ci ci opportunité bi donc di invité rek ñëpp ñu ñi déglu auditeurs yëpp ñu daal di dem découvrir plateforme bi surtout aussi ñu xam ne plateforme africaine la seen plateforme la suñu plateforme la. Mhm. et que ñu ngi euh, ñëw ci kanam ak yeneen fonctionnalité ak yeneen communication ak yeneen tour yoo xamante ne juste pour mën a gën a fësal liggéey bi. Mhm. ak wax leen utilité bi am ci ginnaaw loolu. Mhm. di leen remercier bu baax merci Mor tàggatoo. waaw voilà di leen di leen encourager di leen euh, wax ne liggéey bu am solo la xanaa di leen xaar fois chaque année avec euh, le président du mouvement des entreprises monsieur Mbagnick Diop peut-être que dinañ xaar foofu ngeen mën a gën a jëmmal euh, bi les plateformes pour ñëpp xam ko au niveau mondial donc di euh, nuyu aussi sa sa sa compagnon di du jour donc aussi David Ndiaye aussi donc di ko encourager aussi si liggéey bi mm-hmm. donc jaajëfal ñëpp ñu ñëw ñoon merci Mor Fall merci David Ndiaye associé marketing merci Aminata Ly directrice marketing Toucher di gërëm Léon mu féete woon na ci partie technique gis nañ ko Sénégalais yi euh, toogatuñu rek di consommer ñi ngi jéem waaw ñi ngi jéem euh, donc di wax ñëpp rek ñu dem abonné wu créer compte Tucher ndax am na solo waaw di nga ci jëlee xam-xam bu dee aussi am nga xam-xam mën nga dispenser ba ñu fay la ci euh, voilà di leen gërëm baax di gërëm mboolee mbokk déglukat bu ñu doon bàyyi xel mbokk yi ñu ne dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence beneen thème yeneen invité